subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa innaka anta al-aliimu al-hakiim allahumma allimnaa maa yanfa'unaa wanfa'naa bimaa allamtanaa wa zidnaa ilman assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu alhamdulillahi alladi axyaana bacda ma amaatana wa ilayhi nushur ginnaaw buñ sante buur yàlla subhaanahu wa taala nangi julli ci sang bu tedd wi di ar rasul mustapha sallallahu alayhi wa sallam Rewmi FM 97.5 dellusiwaat nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy topp suñu émission fajar bi ngeen di si ànd ak mbokk Ibrahima Drame ñu ñaan yàlla suñu boroom tabaraka wa taala an yajcalana min alladina ya rabbal alamin mbokk waxtaan yaa mujj woon ñu ngi taxawoon ak yéen ci buntu bu mag bi nga xamante ne moo nekk buntu importance su julli julli woo xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallama nee na mbindaa foonu yàlla ñu ñu duppee ay malayka dañuy ñëw di saafuwanteeg jullit ñi jamono ju ñu nekkee fa nga xamante ne mooy seeni jaamukaayu yàlla yi muy jàkka yi malaaka yooyu luy doon seeni taxawaay dañuy ñëw nekk ak jullit ñi ci jaamukaayu yàlla yañu nekk di jaamu yàlla si jàkk yi waaye dañuy ñëw bi léegi si jàkk yi ñu àndandoor ak jullit ñi ñuy jaamu yàlla ci bërëb boobu yonent bi nee na ña nekkoon ak nit ñi ci guddi dañuy dellu fa seeni borom borom bi daldi leen laaj ana lan ngeen bàyyee samay jaami fekk moo leen gën a xam fa ñu jóge ak la nekk waaye malaaka yi dañuy daldi seede jaam yooyu seeni nekkin dañuy daldi wax borom bi ne bàyyi nañ leen fekk ñu jaamu ñu ngi julli yeneen malaaka yi di ñëw waxtuy takkusaan ñoom dañuy naan yàlla keroog buñ doon wàcc ci suuf fekk nañu sa jaam yi ñu lay jaamu bi maanaa ñu ngi julli ne woon nañ leen képp ku malaaka yi seede fa yàlla ngir jamono bañ doon wàcc dinañu fekk nga taxaw ci sàppe si waaye jamono buñ doon dellu fa yàlla dinañu fekk nga joxe farata ba noppi képp ku jàppoo sa dund bi nii ba keroog malaaka yi seede la seede bu rafetee nii fa sa boroom war nañu am yaakaar ci sa mbir kon yàlla ñu yàlla déggaloo xadis bi yàlla suñu boroom tabaraka wa taala mu may ñu ñu la xadis bi di wundu amin ya rabbal alamin tey ñu war jokku ci xadis bu beneen xadis bu bees fa yonent bi sallallahu alayhi wa di baaxee ci xadisu abi hurayrata radiyallahu anhu an abi hurayrata radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تعش الكبائر rawaahu muslim mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot sahaabi bu mag di abi hurayrata radiyallahu anhu moo ñu baaxee xadis bi nañu naka suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu baaxee nañu assalawaatul xams waxtu yi juri juróom yi wal jumatu ilal jumati arjuma ba beneen arjuma di delsi kafaaratun lima baynahunna yàlla da ci jéggal jaam bi diggante waxtu yu waay diggante aljuma ba aljuma yàlla da ci jéggal baakaar yi maa lam tuchal kabair fekk laaloo bàkkaar yu ngande yi fekk jëfoo bàkkaar yu mag yi waxtu yu julli juróom ak moroomam borom bi da ciy jéggal bàkkaaru jaam waxtu yu julli ak moroomam lañ ci mën a déggee mooy waxtu yu julli suba ba ñu julli ci waxtu ya weesu ak waxtu yi tisbaar bi ñuy digmal ci diggante bi yàlla da ciy far bàkkaaru jaam fekk jëful bàkkaar yu mag waxtu yi julli tisbaar ba keroog ngay julli takkusaan ci diggant bi yonent bi sallallahu alayhi wa ne yàlla da ci far bàkkaaru jaam bi fekk jëful bàkkaar yu mag yi waxtu yi julli takkusaan ba keroog ngay julli timis yonent bi nee sallallahu alayhi wa buur yàlla da ci far baakaaru jaam bi jëful baakaar yu mag yi way waxtu yu julli timis ba keroog ngay julli gee yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na yàlla da ciy far baakaaru jaam bi fekk jëful baakaar yu mag yi kon nga déggee ci maanaa xadis bi sallallahu alayhi wasallam nee waxtu yu juru juróom waxtu yu julli juróom ya nga xamante ne moom la jullit bi di julli ci bés bi diggante njëlbeen bak ñaareel ba yàlla da ciy far baakaaru jaam bi fekk jëful baakaar yu mag yi waxtu julli bi yàlla da ciy bi fekk yu mag yi waxtu julli ñettel bég ñeenteel ba yàlla da ci far baakaaru jaam fekk jëful baakaar yu mag yi waaye waxtu yu julli ñeenteel ba ak ba yonent bi nee na yàlla da ci far baakaaru jaam kon xadis bi day gën firndel firndeel xadis ba ñu fi waxtaanee woon ci suñu waxtaan ya weesu képp ku yore dex ci bunti kiram mu ci sangu juróomi yoon ci bés bi yonent bi laaj saxaaba yi ba xam kooku yaram bi dina taq ci ay tilim-tilim saxaaba yi ne ko déedéet kooku yaram yaramam bi du taq dara ci tilim-tilim yaramam day set kon noonu nga déggee xadis bi tamit noonu nga war a jëfandikoo xadis bañ leen jàngal nii diggante waxtuy julli ak moroomam ndigam borom bi da ci far bàkkaar nga julli ñaareel bak ñetteel ba ci diggante bi borom bi faral say bàkkaar nga julli diggante ñetteel bak ñeenteel ba borom bi far say bakkar diggante ñeenteel ba juróomeel ba yàlla far say bakkar mooy bés bi taxoo dara ci bàkkaar ndax ci piscine yi ngay plongé wu ci biir dex yangay sangu moo tax yàlla du la bàyyeeg toq bàkkaar yelay lay taxal xadis bi muslim moo ko solo ba léegi yonent bi sallallahu alayhi wa mu ngi nii duñu baaxee nañu wal jum'atu ila al jum'ati kafaaratun lima baynahunna aljuma ba beneen aljuma di delsi sallallahu alayhi wa sallama nee yàlla suñu boroom tabaraka wa day far bàkkaaru jaam bi beneen arjuma di delsi arjuma bi ñu nekk ni bu dee ba keroog muy delsi borom bi da far bàkkaar fekk jëfoo bàkkaar yu mag yi kon jullit bi yow danga war a xam ne am na lala sa boroom wërsëgal bu la bàyyeeg sa pexe rekk doo gisi yoon woowu ba nga ci war a mën a tënk bu dee jaay la doo ko mun a jënd ndax dafa cher bu dee liggéey moo la koy taxa jot doo ko man ndegem yàlla dala bind nga doon ku loof ku matadi ko doyadi kon bu fekkente ne loolu mooy daalika fadlullahi yutihi man yasha ngineelu yàlla ba nekk fa moom yàlla dakaa soob dong mu jaglel la ko nga nekk jullit bay respecté waxtu yu julli nga nekk jullit bay diglu lépp la nga xamante ne dalay womat jëmale la ilaa yu yuhibbuhu llahu wa yarda kon yow danga nga war a takk sa ndigg xar sa tànku tubéy taxaw ci ndigle yàlla yi bi qadari istitaatika ci sa kémtalay kàttan waaye sore lépp li nga xamante ne borom bi dalakaa tere ci nang ko mënee wala naka la ko yonentu bi jàngalee sallallahu alayhi wa ndax ngëneel bi bu duwutoon ngëneel ba tukkee ko fa suñu borom kenn mënut a jëfalanteeg doomu aadama ngineel bi ni ana kan moo mën a jéggal doomu aadama bi diggante julli suba ba julli tisbaar ana kan ku ko mën a def amul waaye ana kan moo mën a jéggal doomu aadama bi bakkaar ya mu def diggante tisbaar ak takkusaan kooku tamit amul ana kan ku mën a jéggal bàkkaaru doomu aadama bi diggante takkusaan bi timis kooku tamit amul nekku fi amul kenn ku ko mën a def waaye ana kan moo war a mën a jéggal bàkkaaru doomu aadama bi ki diggante timis ak jee diggante timis ak géeg ana kan ku war a mën a jéggal doomu aadama bi ci bàkkaar ya mu dugg loolu tamit amul amul kenn ku ko mën a def waaye ana kan ki war a mën a jéggal bàkkaaru doomu aadama bi ci diggante timis ak amul amul kenn ko mën a def waaye bu fekkente ne ci mbaaxu yàlla ak yërmandem ci xeetu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa mu ne ñu diggante bi ak diggante bi fekk defoo baakaar yu mag yi baakaar yu sew yi yàlla dala ciy jéggal moo mu ne assalawaatul xams wal jum'atu ilal jum'a kafaaratun lima baynahunna maa lam tuchal kabair diggante julli juróomi yàlla da ciy jéggal bàkkaar fekk jëfoo yu mag yi waaye diggante ajjuma ba beneen ajjuma di delsi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na borom bi tabaraka wa taala da ciy jéggal bàkkaaru ni ba beneen semaine di ñëw ajuma bi ñu nekk nii ba beneen ajjuma di ñëw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na borom bi tabaraka wa taala da ci jéggal baakaaru jaam bi da koy effacer baakaar yu sew sewaani fekk tàbbiwul ci baakaar yu mag a mag yi kon ba am sahaabi bi nga xamante ne moom de dafa ñëwoon doon leerlu ci yonent bi sallallahu alayhi wa di saxaabi nga xamante ne ñoom dañoo nekkoon ci keppaaru yonent bi salawaatu rabbi wa alayhi ñuy ànd moom ci jamono ñu di ko laaj mu di leen tontu ba na saxaabi bi di sufiyaan bun abdullahi as-saqafi radiyallahu anhu nee na sufiyaan bun abdullahi alsaqafi nee na qultu dama ne yaa rasulullah yow mi yàlla yónne qul lii fi l islaam qawlan laa as'alu anhu ahadan gayruk qaal qul aamantu billahi summa staqim rawahu muslim mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot xadis bi saxaabi bu mag ki ngi naan sufiyaan bun abdullahi athaqaafi radiyallahu anhu yal na ko buuri yàlla gërëm qaal sufiyaan bun abdullahi nee na qultu ya rasulallah dama ne woon yow mi yàlla yónni qul lii fil islaam maa bëgg nga wax ma ci islaam qawlan baat woo xamante ne laa asalu anhu ahadan gayro dootuma fi nekk di ko laaj keneen kudut yow qaal yonent bi ne ko qul amantu billahi waxal te nga fas ko sa xol nga di ko jëfe ne jébbal naa sama bopp ca yàlla summa staqim topp ci nga jub nga taxawee la nga wax nga dundal ko say cër waaye sa xol bi na ko fas mu doon lu déggu cër yi nañ ko wone nga taxaw ci dara bañ la ciy jëlee bu fi nekk di def comme na ko ñeneen ñi di defe jébbal naa la sama bopp àddina ak alaaxira loolu baat la dañ koy wax mais jekkul kenn du jébbal sa jëmm ci sa moroomu doomu aadam ci yàlla dong la ñuy jébbalu jaamu yàlla ku baax dañ koy topp di ko roy ci jaamu yàlla ba muy def nga roy ko ci topp ko ci naw ko ci di ci niitoo noonu lañuy ñuy toppee jaamu yàlla ku baax waaye jébbal loolu yàlla dong lañ koy defal subhaanahu wa ndax moo la fi andi moo la wërsëgal ngelaw ba ngay nooy moo lay wërsëgal la nga nekke jumtuwaay ya nga yore di ko jëfandikoo mu doon sa jëmm ji moo la composel la ngay doxe muy sa ñaari tànk moo la composel la ngay xoolee nga di ko gisee mooy say ñaari bët waaye moo la composel la nga xamante ne mooy waxukaay ba mu roof ci sa biir bopp bi nga di ko waxee ndegem ci ki nga jébbalu kooku munut lenn ci yàlla yàlla cërale ci say cër kon yàlla moom nga war a jébbal sa jëmm ji nga war jébbal sa lépp moo tax ki yàlla yónni kooku mooy ngën ci mbindeef yi keroog bi ko saxaaba bi di laaj ne ko yow mi yàlla yónni te nga ma wax loo xamante ne duma ko laaj kenn wax ma ci islaam baat woo xamante ne duma fi nekk di laaj keneen leneen yonent bi waxu ko ne na nga jébbalu sa jëmm ji ci man waxut ko ne na nga sa jëmm ji ci alquraan waxu ko ne na nga jébbalu sa jëmm ji ci ay malaaka jinne taxu ñoo wax rawatina doomu aadama ni yow yonent bi fu mu ko orienté mooy dako ne waxal ne jébbal naa sama jëmm ji jébbal naa sama xolak sama xëtër jébbal naa sama lépp mboolem seen ci kan nga koy jébbalu billaahi ci yàlla moom mi moom taxañu naa sama lépp sama xam-xam sama am-am sama man-man lépp laa taxañ jébbalu ko fa sama boroom gannaaw si nag nga taxaw ci temm nag mu doon lu dëggu ci yow moo tax yonent bi ne ko thumma staqim gannaaw bi nga jébbaloo sa lépp fa sa boroom boo waxee na boo jëfee na ku la gis sax ngay dox na xam ne kii jébbalu la fa boroomam noonu la ñuy déggee maana xadis sallallahu alayhi wa lii la wax saxaabi ba ko doon laaj ne ko dama bëgg nga wax mo ci islaam baat bi nga xamante ne dootuma fi nekk di ko laaj keneen yow rekk doy nga ma ci li ma tontu sallallahu alayhi wa ne ko qul waxal ne amantu billahi jibbal naa sama jëmm ji fa gëm naa ko nee naa moom kese moom dong moom kottu rekk mooy buur bu ñu war a jébbalu mooy buur bu ñu war a jaamu mooy buur bi nga xamante ne moom dong moo yeyoo ñu jaamu ko ba tax na ci moom laa jébbalu sama lépp ginnaaw ci nag mu ne ko istaqim na doon lu dëggu ci sa xol sa cër di ko jëfee sa làmmiñ bi di ko waxee waaw képp ko jëflante ak yow na xam ne yow ko jébbalu nga fa sa borom ngir jëflante bu yàlla gërëm bi ngay jëflante ak nit ñi ku la gis na xam ne yow ku jébbalu nga fa sa borom ndax lu muy njëkk a sentir ci say guu walla lu muy njëkk a xàmmee ci say profil mooy ku jébbalu nga ku nangul sa borom nga ku gëm sa borom nga ku wóolu sa borom nga ba tax na noonu bokk na ci lu ñuy déggee maanaa xadis sufiyaan bun abdullahi moo ko laaj yonent bi ne qultu yaa rasulullah dama ne yow mi yàlla yónni sallallahu alayhi wa sallam qul lii fi l islaam wax ma dara ci islaam loo xamante ne qawlan baat lay doon laa asalu anhu ahadan dootuma fi nekk di ko laaj ma sàmb wala ma laaj ma demb wala ma di laaj keneen ku dut yow moo tax mu ne ko laa asalu anhu ahadan gayruk dootuma fi nekk di ko laaj keneen ku dut sallallahu alayhi wa ñaari baat yu gàtt te ëpp njariñ la ko tontu nañu ko yàlla fayal alayhi afdalu salaatu wa aska taslima qul yonent bi ne ko waxal amantu billahi jibbalu naa fa sama boroom gëm naa sama wiital naa sama boroom duma ko bokkaaleeg dara duma ko bokkaaleeg lenn moom kottu rekk dong moo fi ne subhaanahu wa ta'ala gannaaw ci loolu yonentu bi ne ko summa staqim gannaaw ci nang ci sax na la jigéen bañ a wàcc yoon na la alal bañ a wàcc yoon wa na la doom bañ a wàcc yoon wa yoonu istiqaama ba nga teg sa tànk bu la dara jaral ba nga wàcc boo ko wàccee rekk torox boo ko wàccee rek wayadi comme ni ko gaay waxe boo ko wàccee rekk sanku waaw nang ci tënk sa bopp taxaw ci ne tem waaw amul dara lay ñëw ba ngay yox yoxi di si wàcc moo tax yonent bi ne ko boo fasee lii sa xol say cër di ko jëfe nang ci nangoo dëjju toog ci taxaw ci tem ne soccet waaw di xaar yàlla ñoo taqaleel ak loolee te mooy nekk ci ba keroog yàlla di la jëlee ci kaw suuf hadis bi muslim moo ko solo kon ba léegi ñu mën a déggee ci maanaa xadis bi yonent bi waxu ko ne waxal ne gëm naa leneen walla jébbalu naa ci feneen walla ci keneen gannaaw si nang ci sax déedéet yonent bi waxu ko lool da ko ne xool waxal baat bi ngay wax sa làmmiñ moo koy tudd waaye sa xol moo ko war a fas say cër yi di ko jëfe ñu di ko manifeste baat bi mooy lan amantu billaahi gëm naa yàlla ne mooy buur bi fi nekk amul keneen amul leneen te bokkalewu ma ko dara bokkalewu ma ko lenn billaahi yàlla moom laa gëm ci moom laa jébbalu kot rekk dong du keneen du leneen te amul lenn lama koy bokkaale lii boo ko fasee sa xol ba mu dëgër këj yonent bi ne ko nag su boobaa su mastaqim na ko manifeste say cër làmmiñ baaka tudd xol bi moo ko fas na ko cër manifeste na ko cër yi wone ci wax na ko cër yi wone ci jëflante na ko cër yi wone ci melokaan nii la ñuy déggee maana xadis bi sallallahu alayhi wa sallam nii la baaxee saxaabi bi ñu naan sufyaan bun abdullah sallallahu alayhi wa sallam orientation ba mu orienté saxaabi bi di sufyaan bun abdullah nii la ko yonent bi orienté ne ko qul amantu billahi summa staqim mbokk yi yal na ñu yàlla dégguloo maana xadis bi yal na ñu yàlla dégguloo la xadis bi di wundu yal na ñu yàlla wërsëgal ñu dund xadis bi lamu tekki ci suñu dund àddina ëllëg keroog bés pénc bu ñu dajek suñu boroom mu doon ku ñu mu doon ku ñu yërëm amin yaa alamin waxtaan bi jeexul waxtu bi moo xoj ñu nar a jébbal bërëb ba ñay taxawee xibaar yi ñu ñaan yàlla suñu boroom tabaraka wa taala an yajcalana min alladina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna axsana amin ya rabbal alamin allahuma ya rabbi aminna fi awtaanina waslih allahumma aimmatana wa wulata umurina allahuma ya rabbi ihfada bilaadana min alfitan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 wa barakatuhu wa barakatuhu wa barakatuhu wa